bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala maa ngi tàmbale samay kàddu ci turu sunu borom di wax bismillah di sant yàlla di julli di sëlmal ci ab yonantam ak ñooñam ak i saxaabaam ak liggéeyaa konam ba ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu mbokk yëpp nuyób islaam te mooy asalaamualeykum wa taala wa Euh, ginnaaw loolu xasiida gi ñu tënkee Shahbaan euh, dama ko gis muy bindum sunu sëriñ euh, sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Suhayb Mbàkke mu bind ko ci benn fan ci Shahbaan bi xasiida gi dugg lool lool moom ma yóbbu ci ma fas yéene ñu waxtaan ci xasiida gi waaye waxtaan ci sëriñ Tuubaa ak saxbaan xam nga sëñ Tuubaa moom weer yëpp dañu ay weeram weer yëpp dafa fees moom Cheikhul Xadim saxbaan nag kon danañ ñëw ci jëmmi xasida gi waaye balaa boobu ñu ñëw ci xew-xew yi nga xamee ne am na ci lislaam te am ci weeru saxbaan ba ci njëkk taxawilul qiblat min baytil maqdis ilal kaxbati ci weeru saxbaan la moon xam nga bu njëkk ba buñ daan julli yonent bi da daan jublu baytil maqdis waaye nag ci weeru saxbaan biñ gàddaayee ba am fukki weer ak juróom benn wala fukki weer ak juróom ñaar ca la yàlla digal yonent bi mu jublu kaaba ga boo demee Madina masjidul xiblatayni maa ngi fa xew-xew boobu nag ci weeru Saxbaan la amoon kon mën ngaa wax ne Saxbaan mooy anniversaire julli gi ñuy julli lu jublu màkk ci weeru Saxbaan la amee woon mooy anniversaire mhm. waaye weeru koor wi ñuy woor it ñi ngi ko farataal ci weeru Saxbaan ci weeru baraxlu Euh, ci atum ñaareel bi nga xam ne ci soxbaan lañ koo farataal weeru koor dugg si euh, ñu soog koo euh, jëfandikoo kon li ma bëgg wax rek nu soolu xukkum wujubi mi fi sahr ramadan kon wàccuk àtteeb woor weeru koor ñu farataal ko ci weeru soxbaan la amee woon ba ci sax aay bi inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ci weeru chaabaan eh, la ci moom aaya boobu kon ci weeru chaabaan la suñu xam xamle ne moom ak ay malaakaam dañuy julle ci yont bi kon joxe ndigal na yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla julleen ci yont bi sëlmal ci moom kon mu ngi noonu waaye xam ngeen ne xusaynu xusaynu ibnu ali radiyallahu moom itam mm, ci saxbaan la gane àddina ñetti fanu saxbaan ci atum ñeenteel ba ci gàddaay bi eh, ca la gane àddina xusaynu moom nga xam ne moom ak xasan ñooy mm, sayida asbaabi ahli janna ñooy sangub waxambaane waa àjjana yi wax naa ko léegi taxawilul xibla ca la amee woon boo demee ca saxil baqaar yu damay bañ a gudd danga koo fekk euh, xadis ba am na ñu wax ne loolu mi ngi amoon ci muntasafu saxbaan fukki fan ak juróom euh, ci di nisu saxbaan euh, ca la amee woon am na ñu wax loolu xasootu bani mustalix moom itam ci soxbaan ci atum juróomil ba euh, ca am amoon xare boobu bañ a guddal moo tax ñëwuñu ci détails ci soxbaan ci juróom-benneelu at ci soxbaan ca la Ali Ali ibn Abi génnoon jëm ci Fadak moom itam suriya la woon suriyatu daw matul jandal moom itam ci soxbaan la amoon suriyatu Umar ibnu ci turbax itam ca la Soxbaan la amoon suriyatu abi xataadata jëm ci xadrata moom itam euh, ca la amoon li ñuy wax mahrakatul xasid mi ngi amoon ci Soxbaan ci fukki at ak ñaar ci gàddaay bi ak mahrakatul jasri yëpp euh, ci Soxbaan la amee kon gis ngeen Soxbaan weer la wu bari ay xew-xew wu bari ay événement gis ngeen sax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu gàddaayee ñëw Madina dafa am lu yahud yi siiwaloon yahud yi dañoo siiwaloon ne dañoo njabar euh, jullit ñi ba duñ fi amee doom ba duñ fi amee doom euh, loolu nag indi woon na jafe-jafe nga xam ne ñi di ko wax naan dañ leen a jabar fii doom euh, duñ fi amee doom ba abdullahi ibnu suwayru mooy ki njëkk a gane àddina ca madina ci atum ñaareel ba ci gàddaay bi loola ci weeru saxbaan la amee woon ci atum ñaareel bi nga xam ne kon ñëw nañ ba am ñaari kenn ganewu fa àddina gàddaay nañ ba ci ñaareel at ba kenn kenn ganewu fa àddina yahudi di wax ne ñoo leen jabar eh, abdullah ibnu subayr nag gane àddina ci weeru saxbaan kon day mel ne njàqare ak loolu jullit ja ne woon ci saxbaan la dañee ci gane ak àddina ak abdullahi ibnu subayr moo toll eh, ñaari fan ci saxbaan la gane àddina ci atum ñaareel ba moo tolloog 29 yunayr 624 milaadiya Abdullahi ibnu Suwayr boobu nga xam ne euh, Aïsa radiyallahu la ndax Zubayru ibnu Xawaam mooy baayam saxaab mag boobu waaye yaay mooy Asmaa bintu Abi Bakr Sadiq nga xam ne Aïsa umul muminin mooy euh, xaalutoom mooy tàntaam wax naa ko Xuseynu euh, ca la gane àddina kon gis nga euh, lu bari xew-xew la moom euh, weer wi di shahbaan weer wi nag dafa bokk ci weer yi ñu gën a sopp weer yi gën ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne saxaaba yi dañ ci doon waajal di ci teertu weeru koor ñuy njëkkante ci biir weeru shahbaan ci topp yàlla di bari lu ñuy génne sarax di bari lu ñuy jàng alxuraan di ko ci nefar euh, di ci woor loolu yëpp nag ñu di ko roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mhm. nga xam ne weer wu am solo la weer lool saxaaba yi dañ ci daan yokk seen jaamu yàlla seenu farlu seenu jéggulu yàlla ndax kat mooy weer wi nga xamee ni mboolem li jaam bi jëf ci at mi ci weer woowu lañ koy yëkkati mu jëm ci suñ borom te ci weer woowu la ne li laylatul nisfu min saxbaan nekk guddi googu nga xam ne yàlla dana xool mi defa mi jéggal leen ba mu des kuy bokkaale wala ñaar ñu xuloo ñaar ñu mere meroo duñ tuddante moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko Aysa waxee nee na li ëpp ci baraxloo yonent bi da ko daan woor nee na yonent bi nag danaan woor bañ ne moom xanaa du dog léeg-léegi mu doget bañ ne xanaa du woor waaye nee na mosuma koo mu woor benn weer ba mat sëkk lu dul weeru koor waaye mosuma koo gis mu bari ak woor ni ci beneen weer comme ni ko daan barilee ci saxbaan kon weeru saxbaan weeru baraxlu la yonent bi ëpp lu daan koor waaye xam ngeen ne tamit euh, cheikhul xadim radiallahu taala anhu chahbaan bi tamit euh, weeram la chahbaan ci weeri cheikhul xadim yi la bokk euh, doy na ci rek ne ci la jóge ci tukki bi sëñ Tuubaa exil bi mu demoon te génnoon fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci atum 1313 dem ci géej gi Euh, def ca samaani xijajin ila xalila ñibbisiwaatam ci réew mi ci weeru saxbaan la kon xam nga weer woowu kon weer wu rëy la euh, ci ci murit gi ndax sëñ Tuubaa ba ñu ko exilé yóbbu ko ci tumurank ga yóbbu ko ci géej ga bi muy dellusiwaat ñëw senegal ànd ak ndam wax ne waat naa wàcce naa waataale leen ñibbisam googu moom taxoon mu naan icc xar rujuuhi ilaa mi saadatana wal takfina naa jamhin xalqi niraana nanga def sama dellu ci sama nit muy sunu taxe bis te bis penc nag nang ñu fegal nag aa sawara waaw na nga def sama dellu sama dellu mu nekk sunu taxe bis penc ba nag nang ñu fegal euh, sawara bis ba ñuy mi def yëpp nang ñu fegal sawara dellu soog sëñ Tuubaa googu nga xam ne taxe la ci ñun nag ci weeru Saxbaan la amee ndax 11 novembre 1902 day tolloog Saxbaan mboolem ñi taarixal ci yoonu murit dëppoo nañ ci ne weeru Saxbaan la xëy na nag ban bis la lañ ci werante waaye moom dëppoo nañ ci ne weeru Saxbaan la kon xam ngeen nag kon weer woowu weeru événement la waaye ci la Sëriñ Tuubaa gisawaat ak rakkam ju baax ja rakam ja nga xam ne moom la dénkoon njaboot ga ba muy dem ci géej gi tam taxaw ca taxaw taxawaay ba gën a rafet taxawaay ba gën a mat muy maam Cerno moom itam ca fukki fan yee ak juróom la ko sëñ Tuubaa euh, gisante sëñ Tuubaa ginnaaw ba ko sëñ Tuubaa woolo mu fekk ko dara Cheikh Issa la yónni woon moom itam xew-xew boobu ci weeru Saxbaan la amee waaye xam ngeen ne sëriñ Masamba Mbacke radiyallahu taala anhu rakk cheikhul xadim jooju moom itam ci Chahbaan la gane àddina sëriñ Masamba ci xëytalu weer wa waaye xam ngeen ne maam Cerno Daaru Muxti moom itam ci weeru Chahbaan la wàccub liggéey waaye xam ngeen ne ak cheikh Mahamadul Moustapha njëkk a wuutu sëriñ Tuubaa tamat ko sëkk liggéeyal sëñ Tuubaa liggéey bu wér a wér ci léppam moom itam ci ñetti fanu baraxlu la wàcc liggéey kon yii yëpp day tegtale euh, weeru baraxlu dafa bari ay événement ci yoon wi am na ay jataay sax yu sëñ bi amaloon yoo xam ni euh, ci weeru baraxlu la ay xew-xew yu am ak sëñ bi te lool yëpp amoon ci weeru baraxlu loola mënees na cee ñëw barkeelu ci tuuti loola mooy lan mooy buñ demee ci xikma bi si Abdullah dajale nee na àllarba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru maraxlu ci atum walsasin 1336 sëñ bi dafa wax ne yàlla dafa digle dige tere tëkkoo dafa digle dige tere tëkkoo mu ne bokk na ci rafet njot nag nga jëf li yàlla dige nga di nga jëf li yàlla digle ànd ak yaakaar am lim dige te mooy ajjana ja ajjana ja nga xam ne moom lañ mm, dig ñu ragal yàlla kon dangay ngay jëfe bokk na ci rafet njortu li yàlla digle nga def ko ba noppi yaakaar a jot nag ci lim dige waaye nee na nga moytanu ko lu yàlla tere ba noppi booleeg ànd ak yaakaar nag mucc ci lam tëkkoo saa yoo bàyyee li yàlla tere ba noppi yaakaar a mucc ci li yàlla tëg koo te mooy sawara nee na rafet nga jot nee nag noo ngi musu ci yàlla ci topp njort topp njort nag mooy bàyyi li yàlla digle ba noppi nekk ci li yàlla tere ba noppi jàpp li yàlla dige danga ko am loolu la sëñ bi wax ca bis boobu nee na bisub àllarba ñaar fan ak ñeent ci weeru saxbaan ginnaaw bi sëñ Tuubaa julee tisbaar ba noppi dane kulumaar suqoo min haa min sab risqan ba aay ba jeex daane yaa ayyuhan naasu ubudu rabbakum ee yéen nit ñi jaamu leen seen borom mu ne alxibaadatu imtisaalu amrul jalil si wa adda jaamu yàlla mooy jëfe ndigalu yàlla mi aji màgg yàlla bi nga xam ne dafa dige wattina bu nax yil jëleli si aw ada moytanu ko tere yàlla mi aji màgg bi nga xam ne dafa tëkkoo daane allasi xalaxakum wallazina min xablikum loolu wax jooju sëñ Tuubaa ci weeru baraxlu la ko waxoon fukki fan ak juróom fukki fan ak ñett ci weeru baraxlu atum 1336 ci la sëñ Tuubaa waxe woon ne ñu kàccoor ñi ngay tudd seen ñaawteef ci lu bilaa mujaaxala danas la nee na ab pir la nee na ñaaw téef yi ñu baax ñi te jubluwoo ci laabire nee na loole sobe la daldi ne ki am xel daal su gisee lu rafet ak kuy rafetal day jariñ ci moom su gisee ku ñaaw ak kuy ñaawal mu jari ci moom sori ñaaw ak ñaawal nee na ku am xel daal xelam da koy dugal ci jëf ju baax ak roy ñu baax ñi ñeer fatal ki am xel xelam daal day tax mu xelu du jublu ñaawteef du roy ñuy jëf lu ñaaw lii sëñ bi mi ngi ko wax ci fukki fan ak ñett ci baraxlu ba tey ci fukki fan di bisu dimanche ci Chahbaan atum 1332 atum Balsasin euh, junni ak ñett téeméer ak fanweer ak ñeent ci la Sëñ Tuubaa waxoon lii ñi ngeen di dajal ci yoon wi ñeent la boroom xam-xam boo xam ne xam na ne moom boroom xam la ku xam te xam ne xam na kooku dañuy euh, ànd ak moom dimbalante. bu fekkee yéena tolloo xam-xam su fekkee ma raw xam-xam nag nga topp ci ginnaawam kon kooku mooy ku njëkk ki ki xam te xam ne xam na kooku dañuy ànd ak moom di dimbalante bu fekkee yéen a yem xam-xam bu la ëppee xam-xam nag nga topp ci ginnaawam mu jiitu ñaareel ba boroom xam-xam bi nga xam ne xam na waaye ba noppi rek jàpp moom xamul sëñ Tuubaa ne fa daalika yuraafaqu bi tanbiih kooku dañ ko dañ ko war a yee xamal ko ne ko yow mi xam nga bokkoo ci ñu way réer ñetteel ba wa jaahilun yooxinu bi annahu jaahilun mooy ki réer ba noppi xam ne réer na ki xamul ba noppi xam ne xamul fa dalika yuraafaqu bi taalimi sëñ ci ne kooku dañuy ànd ak moom ci di ko xamal ñeenteel ba nag mu ne wa jaahilun yaxtaqidu annahu alim mooy boobu nag mooy mooy jafe-jafe bi ki réer ba noppi jàpp ne moom dafa xam ki xamul ba noppi jàpp na dafa xam kooku nak moy jafe-jafe bi motax tax ne fa dalika yu yu wala yurafaqu raafaqu mom kenn du and ak mom dañuy takal ko mom ci nim gëna gaawé kon señ bi wax ji biñ ko wax ci fukki fan ci saxbaan atum 1332 ci la wax euh, wax joju nga xamne wax ju am. solo la ba tey ci la waxe woon ne ci bis boobu ci baraxlu la Sëñ Tuubaa wax ne mucc daal lépp lépp mucc mi ngi ci yéene aw yiw ak wax aw yiw ak jëf ko nee na ku yéene lu baax ku yéene aw yiw walla ku yéene sa mbokk aw yiw wala nga wax ci sa mbokk aw yiw wala nga wax lu baax ci sa nga jëf lu baax ci sa mbokk nee na loolee nga yéene kooku lu toll noonu day ñëw siwaat ci yow kooku am am yiw yow itam nga am yiw kon soo waxee aw yiw ci sa mbokk wala nga jëf ko wala nga yéene ko la nga wax ci moom wala nga yéene ko wala nga jëf ko ci moom loola danga koy am moom mu am ko mhm. mu ne waaye ku yéene nit safaan ba aw ay wala nga wax ci moom aw ay wala nga jëf ci moom aw ay ay woowu nga yéene ku baax ku baax nga yéene ci moom aw ay walla nga wax ci moom ay wala nga jëf ci moom aw ay ay wa day dellusiwaat ci yow mi koy yéene woon ndax foofa amul fu fa dugg mu ne waaye yow nag saa yoo yéenee nag lu baax koo xam dafay dafa bon lu baax loolu nga yéene woon ci moom day dellusiwaat ci yow ndax foofa amul fu mu fa duggee waaye nag saa yu ku bon lu bon nga yéene ko aw ay wala nga wax ko ko wala nga jëf ko ko ay woowu da koy dal dal leen daal di jàng in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaxtum falaha bu ngeen jëfee jëf yu baax seen bopp ngeen ko jëfal bu ngeen jëfee safaan ba ah seen bopp ngeen ko def wax ju am solo jii moom itam sëriñ bi euh, ci Shahbaan la ko waxoon ba tey ci weeru Shahbaan bisu gaaw ñaari fan ci Shahbaan la sëñ Tuubaa waxoon wax ji ci atum 1332 ci Jurbel nee na misaalu ci jublu li amul njariñ ginnaaw ba mu tuubee tub gu sell tuub nga tub gu sell ba noppi nag wëlbatikuwaat jëm ci lu amul njariñ nee na loolu ni mel daa mel ne ku wàcc ba noppi di ko lekkaat yàlla ci yàlla musal nee na saa yoo tuubee tub gu sell ba noppi wëlbatikuwaat jëm ci lu amul njariñ daa mel na ngaa wàcc ba noppi di ko lekkaat mu ne waaye saa yoo jubloo ci lu araam wala luñ sipp ginnaaw ba nga tuubee tub gu sell dangaa mel ne ku jël ay jiit ak ay xalu ay xalu sawara di ko lekk yàlla ñu ci yàlla musal sëñ Tuubaa nag wax ci teg ci wax ju am solo wala yaxmilannakum ahadun ala akilil xay wala ala aljamaraati wala aqaarib bu leen kenn kenn yóbbu ci ci lekk wàccu wala lekk ay xalu sawara wala ay jiit mu ne waaye nag ku teey ku baax ku tabe bu leen wooyee ci lekk gu teey lekk leen ci waaye nag ku leen woo ci lekk aw wàccu wala ay xal wala ay jiit falaa taqbalu minhu bu leen ko wuyu bu leen ko nangul loolu mu leen di woo allahu akbar ba tey ci weeru saxbaan ci bisu ajjuma njëkk jullit tàkkusaan njëkk jullit tàkkusaanu ajjuma fukki fan ak juróom ñett ci weeru baraxlu atum 1325 mm, booba ña nga daar raxmaan ca yéen jolof sëñ bi ne secret bi nekk boo xoolee ci li ëpp ci ñaan yi jóge ci yont bi ñetti yoon lañ koy baamu ñaani yi jóge ci yont bi ci ëpp ñetti yoon la ni mu ñëwee ci istixfaar ginnaaw boo sëlmalee astaxfirullah yooyu ñetti yoon yi mu ne nag li ko waral sirru ba mooy temps bi ñetti ñetti waxtu la la weesu li teew ak li ñëwul soo waxee astaxfirullah nag ginnaaw julli bu noppi daa mel ne da ngaa jéggalu yàlla ci lu weesu ak ci lu teew ak ci lu ñëw lu ñëwagul mu ne ci lu teew ci lu weesu ak lu teew moom feeñ na jërul leeral lu ñëwagul nag mooy ah bañ a tàbbi ci luy waral loola nee bu la neexee tamit nga ne ah li waral ñaan yooyu doon ñett mooy jëf yi ñett la jëf ji ngay fas ak li ngay jëf ak li ngay wax kon gis ngeen sëñ bi ak saxbaan seen diggante day diggante bu yéeme